li Serigne Touba di wax njàngaleem Serigne Touba xale yi màggale waaye ay problème yi diw damm na kii yëpp tuuti ma tudd sax baat boo xam ne kenn waru ko tudd laa jot waaw déedéet bu kenn baaree kenn bul fàtte ne dañoo bàyyi seen liggéey ñëw fii bàyyi leen maa ngi ñoom dama leen di satisfaire. ñaari waaw léegi. Hmm. dañu dégg ne hmm. hmm. ndënd sant ma mam ndënd de. ah samp non non non <laughs> expression bi ngeen di waaw waaw. dama ni. man damaa am plan boo xamante ni bii. Mamadou dama am plan tati moj da ci yàgg ma yokk ci ñaar dem dama soppiwuma ko sax waaye dama ko yokk pour mu nekk ciseau waaw ma ne tati moj waaye jéegom moj waa ñaari plan yooyu dama ko am maanaam ñett baax na juróom baax léegi man xam du ma dem doon président de la république waaye doon candidat am na lu tax nga doon ko waaye du caa génne nag lii tax nga doon ko da nga koy daal wax ci bi nga ko déclaré dama ne man bu ñu jëful li may wax bu fekkee élection day am nañu nangu ma doon candidat est nañ que nangu nañu nangu laa wax waaw waaye sambante wu ma ci ndënd ak seen bi waaw bàyyi ko ma yeggale. ci

damaa jàpp ni dinañ fa nekk naan yàlla nee na yonent bi nee na Serigne Touba nee na doomu ni dinañ fa nekk di ko wax ah mbaa boobu habitué ko du dëgg te loolu boo nee nga te doo njëkke loolu la ngay def du sotti du jax <laughs> wala xëy di loolu moom du ma ci jóg Mm. Mm.